am na quatre rencontres yu fi am yoo xam ne si ñun ak personnel bi daje woon nañu ko waxtaan ci mais bi ñu njëkkee daje yàlla dafa def tey seen invité waroon na ñëw ñu ñu ñu mën a débattre ci loolu parce que yaakaar naa table de négociation yi ma mu ngi fa woon toog te man tam maa ngi fa woon toog kon euh, bu ñëwoon ci la waxtaan bi doon gën a neex mais dinaa ci leeral li ma ci mën a leeral rek comme ñëwut ñëwul ñëw wala boog ñëwagul première rencontre bi ñu njëkk a def ñoom personnel bi dañu ñëw ànd ak seen syndicat ñu toog bi ñu toogee bi ñu commencé wax syndicat yi wax perso euh, personnel bi wax bi ñu waxee seen wax xaw a juyoo bi mu juyoo syndicalistes yi xam ne ñoom ak personnel bi li ñuy wax bokkul ñu ni léegi nañ leen may ñoom ñu retiré wu dem toog waxtaanaat dans quelques jours dañoo revenir waat ci ñun pour mën a continuer suñu waxtaan ak ñoom. bi ñu toogee quelque jours ñoom ñëwaat nañu bi ñu ñëwaatee li ñu wax mooy nañ leen defal contrat ba pare buñ leen mënee yokkal salaire ñu yokkal leen salaire contrat am na ñoo xam ne si am nañu ko du ñëpp ko am nag mais am na ñoo xam ne am nañ contrat bi ñu waxee loolu président AFTU mu ngi teew mu monsieur Mbaye Amar ma koy nuyu au passage ak euh, équipe bi mu àndal yépp moom mu ni moom day contrat c'est obligatoire parce que yoon moo ko wax. waaye nag mbirum yokkum salaire moom kooku ku ci nekk da nga am opérateur boo xam ne si moom moo la jël di la liggéeyloo boo paree da dem nga waxtaan ak moom mu ni moom dina jël engagement képp ku amatu amagul kon amul contrat dina fexe ñu defal la contrat yàlla dogal bi mu leen waxee loolu mu ni leen dem leen ngeen recenser ñi nga xam ne si ñoo ci des te amuñu contrat bu ngeen leen recenser su ngeen ñëwee ñun ñu régulariser leen pour mu jeex benn yoon toog na lu yàgg déggaatu leen déggaatu leen déggaatu leen ba vendredi passé ñoom ñu ni dañuy dem grève bi ne dañuy dem grève fekk na président afti boom nekk fu woon dafa demoon voyage yàlla dogal Thierno biraayim Aw bi nga xamante ne moom mooy nekk directeur SETU daf woo transporteurs yi woo personnel bi ñu toog bi ñu leen woowee ñu toog mu ni leen man de awma sax droit di dalal syndicaliste di wax ak moom waaye nag comme régulateur la am naa droit su ma gisee secteur bi lépp lu ma jàpp ne da koy gàllankoor ma ñëw woote waxtaan pour ñu mën a fexe gàllankoor boobu ba ñu am bi yàlla dogalee loolu Thierno Birahim Aw toog syndicaliste yi délégué syndicaliste yi toog délégué personnel bi toog transporteurs yi toog mu ni leen contrat moom ala kulli àllin ñi ci des te amuñu contrat dañ leen defal contrat li ma bëgg mooy ñun ñu soññee protocole d'accord fii ngeen xam ne à partir de lundi damay woo inspection ñu ñëw toog ministre du travail toog transporteurs yi toog ngeen toog ñu xool procédure ñu commencé procédure bi fii ak un mois ñu mën a pare ci procédure boobu mën a defal ñépp contrat dem na sax ba jël ci engagement ne suñu demee ba boobu. oto bu amatul contrat dañ lay rayee ci réseau bi dootoo daw chauffeur bu amul contrat tam dañ lay dindi ci réseau bi dootoo dawal ci oto oto aftu yi loolu engagement boobu jël na ko bi mu ko jëlee ñoom ci seen bopp nañ ñoom comme dañu leen a yebal ay ndaw lañu yoo xam ne si dafa am ñu bootu seen ginnaaw ñoom dina dem waxtaan ak ñi leen yebal directeur CETUD ne leen man de dimanche du ko liggéey waaye. régler problème bi dina ma jaral man dimanche dinaa mën a ñëw toog fii xaar leen ba 15 heures bu ngeen ñëwee ñu signer protocole d'accord bi à partir de lundi ñu mën a commencer procédure yi fii ak un mois mu mën a jeex ñu régler problème bi mu jeex benn léegi bi yàlla defee mu loolu am mu ni leen maa ngi leen déglu dimanche moom mu koy ñëw toog biroom woo transporteurs yi ñu ñëw toog ñoom bi mu demee ba quinze heures jot mu woo leen ne leen fu ngeen toll ñu ni ko dañuy waxtaan pareegul. personnel waaw personnel mu toog fa toog fa toog fa ba 17 heures la jóge bureau ñëwuñu ne transporteurs yi dem na ñibbi comme ñii boobu ba léegi ñu ngi leen di woo ñëwuñu dem leen ngeen ñibbi man damay ñibbi parce que dimanche man war ma ko woon liggéey waaye lii moom obligé pour ma liggéey loolu nag kenn mënu ci dara ñoom ñu xëy dem grève ba démb démb démb bi may wax li may wax ak yow nii démb président Afti jóge na voyage dem ba ci ñoom seen quartier général pour wax ak ñoom ne leen li ngeen bëgg muy contrat yi li ci des parce que am na ñu am contrat am na ñu amul contrat ñi ci des te amuñu contrat ñun pare nañu pour defal leen contrat loolu nag. après léegi man su ma su ma la déggee bu baax yéen transporteurs yi. Mhm. grève woo leen grève waanoo leen seen yoon. neew ci grève bi d' leen ci grève de waatul yoonam nekkul ci grève ñi grève ñooy personnel roulant bi nga xam ne si ñoom ñooy yor oto yi ñooñu ñoo grève